ñu wax monsieur le ministre ñëw nga sa kër ñu ngi la dalal jàmm kër goo xam ni tey ah kër gu doy waar la kër goo xam ne tey sa njaboot moo fi ne njaboot yi nag am nañu ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ni il faut ñu waxtaan te ñëw ndax yaay suñu kilifa gouvernement bi li muy yaatu yaatu dañoo jox baykat yi ak ministre jox ku nekk ñu yow nag yaay suñu bas yow yaa dañoo am ay yoo xam ni il faut ko ci taabal ndax gis nañ sa taxawaay ci war a gaynde daal jaaxal na xale yi te place yi nekk Thiès bari nañu mat ëpp nañu mille six cent sept place yi ci yëpp Dakar Thiès la ñuy daw te gis nañ ni tey Patte d'Oie gaar war gaynde la croisement Cambérène gaar war gaynde la te léegi ñoom ñu ngi jël seen oto yi di ko indi ci gaar di ko fa gaare carrément duñu mën a génn ci gaaru Thiès ba nga xam ni oto yi walla bali ñoo fi taxaw ñu gis ni loolu ñu ngi lay ñaan transport ah, ci transport routier yow la yàlla jox doole ji ndax yow la ko borom réew mi ndax gis na ni Senelec seen courant bi ku ci lenk bala ngaa taal ñu jàppale tëj ci kaso bi. SDE seen pion ndox yi romb na sama dëkku maam bi ak teel nañu naan waaye ku ko bën doo naan ñu gis ni sécurité boobu mu war a am loolu nag changement am. léegi li ci teg tam mooy monsieur Tall mi gis nañ taxawaayam ci dëkk bi mi ngi jàppale chauffeur transport bi li mu mën ci fulla ak fay rek taxawu dëkk bi ndax Thiès moom koo gis ñu di ko fi yabal ku mën ndaw ndax Kajoor la tudd dëkk la boo xam ni ku fi nekk ku nekk dafa am nooy seeree waa ñoom nag ñu leen ñaar jàmm ak xéwal ak yokkute monsieur le ministre leneen li ñu ci dolli mooy tey ah, xaadi mi da wax benn wax boo xam ni yàgg nañu koo jooy ndax gaaru teel bi boo xoolee huit ans mi ngi nii lamp yi tàkkul normal te ay milliards moo fi moo am mooy parking bi nga xëy mooy parking transport am ci xalaatu boo ñu mënoon a jàppale ñu parking bi ci nag ni ko Macky Sall defalee ah, ah, tataay nga xam ne léegi doomi oto bu màgget am njaga njaay boobu licence euh, urbain dañ lay changé ñu ngi ni sept place tam ñu ngi ñaan ak ak minicar yi changé parking ndax parking bi man oto bi ma doon la nga 74 ba léegi mi ngi daw te fii am na sëgi nit mais amul sëgi oto kon ñu ngi ñaan suñu oto yii nga xam ni jii moo moo yàq suñu liggéey teewuñu doole ñu ko defaree ñu ngi lay ñaan nga jàppale ñu ubbil ñu benn banque ubbil ñu compte comme agrément mën a changé tey am nañu benn logiciel boo xam ne nii dinañ ko implanté ci gare routière yëpp dinañ ko commencé incha allah boo maraîcher implanté ko ci gare routière yëpp ba nga xam ne dañ leen di defal formation ngeen am ñaar wala ñetti xale yoo xam ñoom la ñuy dénk loolu jël ordinateur teg ko fi ba nga xam ne oto fu muy déplacé wu ci Sénégal danañ ko xam ñu mën a xam flux yi xam niveau de déplacement yi mais loolu dafa bokk ci sécurité ku ne xam ne mbënd mi jógeegu fi dañ koy continuer di ko xeex li nga xam ne état loolu leen wax ngeen respecté ko li ministère la santé wax ñu ñëpp ñu respecté ko ba nga xam ne tey kenn du ne yëf yi law na ci Sénégal te ci transport la jaar. tey ci gaaru Thier li ñu tuuti tuuti ci Thiès jot ngeen 10 millions de francs CFA. mooy gaaru Thier commune bi tey am ngeen 2885 chauffeurs yoo xam ne nii tey dinañ leen jox ay kit alimentaire ci région de Thiès. yéen a ngi am 1195 chauffeurs. ak 83 coxeur ak yeneen auxiliaire de transport maanaam na ngeen leen di wooyee a jeeru yeeg ñoom seen xam ngeen ah loolu mooy def 1278 kits alimentaire alimentaire bu nekk 66 000 francs la presque kon Thiès jàppale nañ chauffeurs yi ci ndimbal 290 millions de francs fa mais ci gaaru ceeru région de Thiès bi yëpp jox nañ leen 67 millions gaaru ceeru Thiès bii fii amna eh, département Thiès amna nañu vingt millions département Thiès kon lolu ndimbal yu ama ama am solo yu président andi jox len ko gannaaw bu mu jappalé ñi nga xamné ñom ñoy transporteur ku ne xamné né transporteur yi jot nañ ñom ñep 8 milliards 250 millions yenn yi transporteur urbain yi la moy AFTU ak Dakar Dem dik yenn yi taxi yi la ñenn yi jakarta man ñenn ñi mooy opérateur de transport interurbain te ñooñu tey war nañ leen jox defe naa lu mu tuuti tuuti un milliard huit cent et quelques millions ci ndimbal loo xam ne dafa jóge ci état état mbas mi laal ko moom tamit parce que état ci ay impôt lay am xaalis waaye bu activité amul chauffeur dawul kenn fayul dara kenn fayul impôt état du am xaalis dinañu fexe le tout pour que njëgu oto yi mën a wàññeeku maanaam fiscalité yi nek ci auto yi nga xam dañuy def transport public dinañ xex ba lolu mëna wañu manam man nga am auto bu bes te do joxe sax compte parce que fonds boobu mom moy ñëw garantir condition de renouvellement parti nek activité commerciale lolu motax ñu ne dinañ xol agrément ban montant lañ ci def pour que ku bëgg nek transporteur da nga fay agrément xaliss bobu ngay fay du dem ci caisse état mais ci fonds bi lay ñëw. ku bëgg licence oto dinga nga fay licence oto licence boobu xaalis bi ngay fay ci fond bi lay ñëw kon ñun li ñuy fay lépp ci sunu fond lay ñëw ba pare dina am ay ticket yoo xam ne nii day am solidarité usagers yi dinañ contribuer ci fond bi parce que ticket transport bu ñu fay dinañ ci jël ñaar dërëm wala ñetti dërëm yokk ko ci pour mu ñëw ci fond bi fond boobu bi ñu ko xaymaa toll na ci 30 milliards bu ñu amee 30 milliards par année ci juróomi at lu mu néew néew lii yëpp dina fi jóge